nag ñoo ngi fii Sile sëñ Malick Bassine si ci dëkk bu ñuy wax euh, Daarou Salaam Sile ñu koy woowee Sile sëñ Malick Bassine si ci région Tamba département Koupentoum fii ñu toll nag duñu def lu may sant yàlla ndax bu ñu yàlla mayee ñu fekke ak tal bi ñuy dugg nawet bi dañoo doon ñaan yàlla mu may ñu nawetu jàmm alhamdulilah rabbil alamin tabaraka law may nañu nawetu jàmm bay nañu jëlee gerte gi bay nañ ko ba agsi nañ ci cappaandaw ji gerte gaa ngi nii ñu ngi koy bees kon dama bàyyi lépp ñëwaat fii nga xam ne fi sama sama baay daan bayee ma ñëw fi dekkal ko di fi bay ndax liggéey rek mooy dëgg dëkkal démb kon nak li ko président de la République di waxe ñun duñu def dañuy sant yalla sant président de la République ndax mbay mi nga xamne ne moom la def tey ji duggal na ci loxom ba ñëpp xam duggal ci loxom mbay maa ngi avancé mel ñu suuf bax nak nag Sall jox nañu bu Nous nañu fatawarka laaw lépp na ñi sant yalla sant sant yalla sant mak Sall mhm. mbay mi taxaw na ci duggal ci loxom mhm. wax deug yalla joxe na bu baax nañu béy gerte gu ñor na lépp atuwaarka ag ag na kon nak ñu koy sant ko encourager xamne mbay mi mi ngi ci sonn mi ngi ci góorgóorlu mën nañu ne problème bi vraiment bëreetut ndax ku xam ñun ñuy béy nit àll bi néew ci rajo yi rek di wax waaye dañoo ne sur le di bay fii nu ne di sil di sëñ Malick Bassine man sama bay moo fi doon ak sama maam yi xam naa ne yokkute am na fi ndax dëkk boo xam ne mi ngi bëgg am téeméer ak lu topp bu nee ba am ba am ba am quatre-vingts ans amul ndox amul courant amul yoon Macky Sall ñëw andi ñu fi yoon andi ñu fi courant di jox ji bu baax ñuy béy di liggéey kooku wax dëgg yàlla duñu mën lu may encouragé ko di ko ñaanal yàlla mu yeggale ak sagom li ci rek mooy mbirum mbéy mi moom mat naa waxtaane ndax coow yu ci am yëpp mën naa ñàkk ndax mag li mu ci def ku ko ci defandoo ak moom coow du ci am kon nag li rek mooy déglu ñi nga xam ne ñoo ñooy ñooy acteurs yi ñu waxtaane ko seet fen yoon moo gën a rafet ci gën a gën a demal liggéey bi kanam loolu moom moom maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy ñaan mu woote ko wala ñaam gerte mi it dañ sant rek ndax gerte dafa yokk ku ne xam ne am njëriñ béykat bu àggee bu àggee bay tabax mosu naa xam naa li fi laa dëkk fi laa juddoo am naa at at bi baay ak sama fi la newoon fi tabax kon bu ñëwee tey benn tabax da àll bi foofu dem nit ñaa ngi tabax ñu ngi miir seen kër ay tabax ay bâtiment état sax koy def te loolu grâce à Macky Sall si taxawaay mi prix gerte fi toll nii tey mosu fee toll deux cent soixante-quinze def jënd ko loolu Macky Sall tax bu du am ndax ko permettre bu ko neexoon tey ko jënd si mu téye leen du ñëw waaye mu am facilité ne ni leen 275 300 foo ñu fekk jënd ko problème bi mooy intermédiaire yi Sonacos dafa war a fi fi intermédiaire yi féete Sonacos moo fa war a féete béykat yi béykat yi war ñu am intermédiaire pour moo war a chinois yi jënd gerte gi ak bitim réew jënd na ko na ko na jënd di ko jaay ñoom su ko defee moom problème dootu am béykat sax day gën a day gën ñoom ñoo xam ne dañ dañ leen du siiwar ci seen liggéey wala duñ leen tàggat ñun maire bi ñu nekkal fii dafa mel dafa

nekkul loo xam ne jàppandi Macky Sall la yoonu moom li ci am mooy dañ ko joxoon ah, kii euh, koo xam te ne bi liggéeyam baaxut ñu arrêté woon ko mu am maanaam mu amoon problème ba nëgën nag liggéey bi agut muy diggante Koupentoum ak Sile président Macky Sall moo ko rang rangrawoon ki entreprise bi ñu ko joxoon liggéey bi baaxut nañ ko liggéeyaat ñu xoolaat ko liggéeyaat liggéey bi continuer yoon wi ba Darou Salaam ñu ngi koy sant nag ci ba mu ñëwee fii ak léegi at yi mu fi def dëkk bi fii nawet mosoo mën a dugg ci lépp ci moom la saa su heure bu mu tawee ba tooy bu la neexee nga ñëw fii léegi ci lépp ci moom la courant bi mi ngi tàkk fii mus kenn mus xalaat ne courant dana dana fa a am mag ñi fi nekkoon ñekk bu jóge fi yooyu yëpp dara am moo ndox mi moo fi indi courant bi loolu la ñun ñu ngi sant sëñ Bassirou si bu baax a baax a baax ñun moom rek sant moom li ñu bëgg nag mooy Macky Sall gën ko a baax xam ne fii mbooloo mi fi nekk yëpp am mbooloom la moom daal bu jàppale bu wér wér wér bi sëriñ Bassirou delloosee fii ci dëkk bi daf ko soqalihaat ndax taxawaay ba ñu am courant mu taxaw ci ba ñu am yoon saa bu ñu bëggee dem dem. ndax ñun fii mu ne Gojak baag jóge na ci réew mi nguuru Macky Sall diggante dëkk bu ne ak morom ka 7 kilomètres forage yaa ngi séenante kon nag Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi dem nañ ba gën a kuur mi ngi fi bëgg a jógee. Serigne Bass mii moo fi taxawaay nekk fi représentant Macky Sall ci suñ dëkk bii ndax dafay ñëw fii nawet jot am ñoo xam ne ne amuñu fi jiwu moo leen may leen jiwu ne leen am leen dem leen liggéeyi. ma ma may la jën ma jàngal la nit ñi ma jàngal nit ñi nappee moo ko gën daf ñay jàngal nit ñi nappee